association bii ak bii ak bii ba mu man ñaar fukki association de consommateur ci réew mi ma na la gis nga su passé association bii nga xam ne maître ma soxna kan jiite na ko di SOS consommateur ak association bii nga xam ne mooy ASCOSEN xam ne Momar Ndaw moo ko jiite amul beneen association de consommateur boo xam ne mën nañu koo tudd fii ci réew mi te nag li am ba des keroog bi Macky Sall te ma ne la ñaar fukki association ñoo ko wujje lii nag li nga xamante ni nag moo ko wundoo ma ne la taxawal sab association ngir nag am ci xaalis yéen gi di bés bi nee na Macky Sall waxtaane na lu jëm jëm ci wàllum dund gu métti geeka njëg yu yokk yi waaye nag ngir ñu wàññi njëg yi dana jafe lool fii ci réewum Sénégal yéen i kaay gii di 24 heures ñu koy fekk fa Mamadou Lamine Diallo bu tekkee nee na Macky Sall bu leen waxee na leen mën naa wàññi njëg yi ma na la da leen di nax Macky Sall munta wàññi njëg yi te li ci kanam rawuti bëta kàddu yi ma Lamine Diallo la nee na nag Sénégal jamono ji bu duggee nag ci guuta ak toroxtaange sunu koomu réew nërmeelu entreprise yi nekk ci réew mi am ay jafe-jafe lépp nag maanaam Macky Sall la mooy un waaye nag deuxième beeg troisième bi mooy Amadou Ba ak ki nga xam ne mooy Amadou Ota Mamadou Lamine Diallo na gis ngeen Amadou ot mii ak Amadou baa waaw Amadou Hott mi nga xam ne moo fi nekkoon économie ak Amadou Ba mii nga xamante ni ay jamono moo nekkoon finance te jamono ji mu nekk premier ministre bu Sénégal ma ne la lu Sénégal dund ci jafe-jafe ak bor yi bari yi Sénégal amee yëpp ma ne la ñaari Amadou yii la yéen kaay gi du source ñu koy fekk fa docteur Mbaye Cissé moom nag nee na waa Benno Bokk Yaakaar amul fenn fu ñu mën a milliards ci lu jëm ci wàllum yoona mën na la ba fuqarti mandat Aminata Touré bii ci assemblée nationale te nag li nga xam ne mooy article soixante bu constitution bi loolee mënuñu see sukkandiku ndax Aminata Touré mën na la démissionné wul ci parti bii di APR yéen kay gi di Walf Fadjri Doudou Wade nee na Aminata Touré tant que wul ci parti bii di APR maanaam ndomba tànk député mënuñu ko jëla waaye nag li nga xam ne daal moom la ko règlement groupe parlementaire la ñu koy tere yéen kaay gi de la vrai journal la nee neexul ba neexul la waaye nag Macky Sall ma ngi say jafe-jafe yu métte métte Macky Sall ma ngi ci ay guddi yu la ndëma la ndëma la ndëma ndax nag Macky Sall problème yi nga xam ne moo ko wër moo bëri ndax kaawu Aminata Touré loolee rek problème la waaye nag yeewu askan wi nga xam ne dañoo sëkkatal Macky Sall loolee rek problème la waaye nag li nga xam ne nag mooy problème bu rëy bi bu ngande bi mooy dund gi nga xam ne dafa cher ba maara de tali Sénégalais yi sonn njàmbat yaa ngi nii yéen kaay gi réew mi quotidien xëy dañu xibaar naan ñu waaw dund na waaye nag accident yi na lool ci réew ndax nag démb lu toll si benn faatu nañu ci accident ci yoonu Mbuur bi yéen kaay gi nee na ab Dacia ak beneen marque Peugeot Dacia bii nag war gaynde la yéen kaay gi de la témoin nee na accident bu méttee métti moo am démb yoonu Mbuur ma ne lu toll si juróom ñaar ñoo si ñàkk seen bakkana yéen kaay gi de l'Observateur na ko wàññi ko def ko juróom benn journal bi nee na benn bis démb rek rek rek vingt-quatre heures lu toll ci fukk ak juróom faatu nañu ci ak si accident fii ci réewum Sénégal ndax juróom benn ci yoonu Mbour ak juróom ñeent ci yoonu Kousanaara ma ngi ci l'Observateur yéen kaay gi de la Tribune xëy di ko dëggal yéen kaay gi de la nee na ca diwaanu Touba ca armeel dafa am benn góor jigéen boo xam ne moom lañ fa bëggoon a suul daayira Muxaddamatul Xidma dañoo lank ba tëdd sa naaj wa bi ñu ko yëgee yéen kay gi de réew mi ko di jee nee na Dakar nar naa gën a xeeñ de ndax ñi nga xam ne ñooy tonni kanu manil yi dañoo taxawal seen liggéey ndax état bi moo leen amel xaalis lu toll si juróom ñeenti weer arrière de te li nga xam ne moo am ba de sala ñi nga xam ne ñooy tonni mbalit mii ak état bu Sénégal mën na la noon nañ ba juboo état bi wax leen na leen waaw nii laa leen di fayee nii laa leen di fayee ba mu jeexa waaye mën na la gis nga accord yi nga xam ne état bu Sénégal signé woon na ko ak concessionnaire yii amul lenn loo xam ne nguur gi respecté na ko se moo tax ñoom dañoo mer ba maara détaal yi yéen a kaay gii di lay si ko nee na Kalifone Sall mi nga xam ne nag moom la xale bu jigéen bii di Adja Diaw tuuma loon lu jëm ci wàllum viol résultat yi génn na résultat yi génn na waaye nag nee nañu daal xale bu jigéen bi viol amu fa pénétration sexuelle amu fa waaye nag journal bi nee na ma ne la résultat yi wane na na xale bu jigéen bi xamul góor jànq la yéen kaay gi du l'observateur xëy di ko dëggala maître Abdinar Ndiaye mi nga xam ne mooy avocat xale bu jigéen bi moom nag nee na dàqul benn yoon amulaat beneen contre expertise yéen kaay gi délibération xëy di ñu xibaar naan ñu résultat yi wane na ne fitnaal nañ xale bu jigéen bi waaye tamit ci ween yi ci seen yi gis nañu fa nag li nga xam ne mooy ay tër gën a bu jigéen bi moom dafa mer ba maara de tali àndul ci résultat yi ndax nee na lu tax ñu toog lu toll si ñeenti fan ngir nag résultat yi doog a génn xale bu jigéen bi nee na waaw man jànq la waaw man jànq la pénétration sexuelle waaw amul waaye nag loxoom ci boppam baaraamam la dugal ci sama kanam loolee mën na ker kenn mënu koo weete journal bi nag nee na moom xale bu jigéen bi nee na dañoo ger ki nga xam ne mooy gynécologue bii yéen a kaay gi di réew mi ko di jeex xëy génn ñu réew mi yóbbu ñu ca réewum Guinée Conakry nee na Dadis Camara teg nañ ko loxo nañ ko sa kasuba yéen a kaay gi